di wone nekk kenn mënul si yow dara c'est parce que oh, duñ la news c'est normal mais dinañ la wax ñi ngay toogee si plateau tele yi di gaaruwaale nit ñi ñun dañuy toog fi duñ la gaaruwaale dañuy tudd sa tur du ngeen ay diinologue du ngeen ay islamologue may ngeen tey yenn ibaadu yi lu ñuy wax si yéen ñëpp dëgg la gëmu leen dara caga ji rek ngeen amal affaire jigéen ñi rek wax leen ma fu ñuy changé voix waaye ma tegale na ay audio parce que kii xool naa ba xool il faut ma tegale na ay audio yuy confirme ne kii ay càggalam wax leen ma fu ñuy changé voix yi s'il vous plaît amul problème parce que ñii comme dañuy jaar réew ñu wan leen ni ñoo leen gën a réew te y a d'autres bu ngeen ñu woo rek ñu fekk leen si parce que lii du sa cër. yow Oustaz xam nga ne nag wax dëgg yàlla léeg-léeg mbir lu mu rafet rafet dina am ñoo xam ne safaan ba la gis maa ngi dégg am ñoo xam ne ñu ngi clash ñi mel ni Aziz naan xëy na yëf yi dafa xaw a niru puukare xëy na yu ñuy wane teraanga yi ni ñu koy defee traité yooyu euh, lan ngay leeral ci loolu yow Oustaz am na ñoo xam ne vraiment ñoom euh, beneen gis-gis lañ am quand même ci doxalin bi. xaw ma Aziz Ndiaye de mais bu doon man Modou Fall de naan <laughs> maa tey. barki am sama xaalis liggéey ko di jënd ay teraanga di ko jox ay jullit ñu koy xéewloo ñoo xam ne fi ma leen fekk ñoom xam nañ ni yàllaa ma yónni ci ñoom am ñu toog ca àll ba francola yu taal seen climatiseur naan day tiitaru luy réponse bi lu dul maa tey maa tey ba ca digg yax ba hmm. bu doon man loolu laa lay tontu mais Aziz nag xaw ma luy réponse am mais bu doon man Modou Fall la yàlla dénk lim dénk Aziz ndjay may séddale samay nak diko def fi diko def Touba diko def ci keuru diine yep am ñu tok ci seen rukku ne damay wane wu damay titeeru kuma ko wax man Modou Fall manila ma tay ta ma tay bi amna lu ci wara yok de caméra ye tak dégg ngeen maa tay bi amna lu ci wara yok caméra kon lu nek ci bir deñum bi amna lu garaaw lu mu wax mais caméra ye tax moy saga la bëggoon est-ce que oustaz day waxe ton bi maa tay. doomu aadama nga nit ku dul juum amul sàmm sunu pas-pas di ay doomu daara nekk biir Tiwaawan danoo condamné li ngeen def te ñooñu ñoo leen gën jàng fop ay doomu Tiwaawan ñoo xam ne dañuy sàmm seen pas-pas ñoo xam ne dañuy sàmm seen Tiwaawan dañoo lu jëfi ñaaw yi ngeen def foofu barki démb on vous parle pas de ay nag yu ñu rey c'est xaalis mais taatu nee yi fa doon feeñ weenu neen yi fa doon rëyul rëyul donc yéen <laughs> war ngeen commerce wala ngeen toj seen xutu xata gi dem defi mécanicien comme reewande ngeen di jaay rek ñoo leen reewande de fu mu yem neex sunu génération bii nag ak yéen ñoo maase génération lu ngeen def ñu dindi duñ leen may salaam nu ngeen amee plateau tele di wax nit ñi di dégg noonu lañuy amee suñuy télé suñu biir poos di wax muy wër àdduna ñépp di dégg fu ne la ko gars yi di dugal whatsapp ak youtube ak tiktok ak facebook ak twitter ak fépp ñu dégg nu bu dee ay golo ngeen di ngeen gis ñoo xam ne dinañ fi jële golo yi génération bu bees bi yeewu diine gi kenn du ko mbubboo bëgg si faj sa aajo ak ku on est là on va détester dinañu wax Gombi bi dañu Alcolpi. alcool bi amul parce que y a le dëgg loolu la ñuy de Grec. rek Modou Fall peut-être bu wax si moom monde dul moom dañuy wax si moom fu donc vous voulez yàq ñi tax gàmmu gi am doole ci biir Sénégal santuñu faal si lañu sant si Seydi Hadji Malick si moo tax ku gàmmu Sénégal tey si moom nga roy moo fa njëkk gàmm lu leer donc ñoom du ñu dem tey ba ay millions de personne gëm gàmmu googu ngeen di ñëw di tilimal gàmmu gi Tiwaawoon du folklore Tiwaawoon xamuñu caaxaan xale boo fa gis alxuraan mu ci bopp bi muy góor muy jigéen boo génnee nag dem fekk ngeen di def vidéo naan ay ñoo tey da fi gën a réew kenn wala dangeen yaakaar seen alal yooyu ngeen am bu ngeen lekkee dibi ñun ñu lekk suñu keccax da ngeen ñu ëpp fulla mënu leen ñu ëpp fulla am leen i jamaa ñun ñu yori find feer mais amul lu ngeen ñu ëppee ci borom bi kenn si yéen du dee ñu aj ko si kaw asamaan si suuf sept mètres moo lay topp ay trompeur ngeen gëmu leen yàlla gëmu leen borom bi parce que borom bi boo ko gëmee dangay wax ay kàddoom kàddu borom bi mooy dëgg moom la def si alxuraan dëgg jigéen bu paccal bu mu toog si géew bi bala bu fa toogee ngeen wax ko si micro bi soxna si ñu ngi jéggalu guddi yonent bi la tey demal wuti kaala teg sa bopp bi looluy dëgg mais ay naafeq ngeen xaalis ngeen di jaam sañu leen ko wax parce que yéen ngi bañ ñu ne way waroon wax lii diine bi amul rus yàlla rusul kenn dafa teg ay charte respect bu ñu génnee guddi gàmm nag ku ne dafa lu la neex yow la sa jour bàmmeel yow la jugé wuñ kenn maa gën a bon kuy bon jugé wu ma mais dañoo ne bu nu bonee ba bon suñu bon bu gàmm gi ñu ñaan sunu borom mu jéggal ñu suñu bon loolu rek la ñu am kon kenn du duñu ko yàqal moom la dese moom la ñu dese guddi gàmmu gi ngeen bu ko defaat sabar ba tas ngeen ne duñu wax parce que lii kan si yéen kuy dee ku yóbbaale lii walla kan si yéen ku juddu ku àndaale lii boo yi nekk senegal ñoom ñëpp karaw bu ñuul lañu ñu yor deewu gunu seen wërsëg mën na dem ba ëpp ñi yéen seen wërsëg te duñ ko defee nii ngeen di koy defee ñu bëri ñu ngi biir Sénégal nekk ay milliardaires chaque jour ñu ngi jox ay doomu aadama ki doomu aadama dépense kenn yëgul kenn timul billahi mais ñàkk jom bi nekk si yéen liñ leen gëmloo mooy xaalisu tey bi eh milliardaire ak wala patron moom lu mu wax rek neen nii néew di doole bi lu mu def nga dal ci kaw du noonu C'est pas comme ça. guy euh, excusez-moi wax qui ma kii nu mu audio yi nuñ koy euh, kiiwee euh, ok nuñ koy defee euh, bu ma duggee fan laay dugg s'il vous plaît ku si xam dara waay voice effet fan laay dugg voice effet fan laay dugg voice effet fan voilà bu dee am na ku mën a def demande expliquer moom je sais pas parce que ñii se fout des gens se permet de ay ñoo tey yu kenn xamut man li ma def ma accéléré audio fooy defee accéléré audio bi ci téléphone bi attends xaar mooy waa attends xaar leen არ მარტივ მიკრობი. gars voice bi du du leer quoi am benen bu gën a leer comme ni xoola déglul wala gis nga oustaz Modou Fall man maa la ko mën a wax gis nga oustaz Modou Fall xale jigéen ñi koy yàq dara lu bëri yëpp xam nga xaw ma non la def ñeneen ñi demee man lu ma def daa lay wax gis nga oustaz Modou Fall dafa am bis sama benn cousine am kan donc bu amee kan bon bu fekkee mooy loolu non nii du leer j'aime pas bii doxul excusez-moi non dama ni euh, euh naa bi mais du leer quoi fi dama bëgg ngeen wax ma fu muy leere mooy changer voix bi ci TikTok amna na ñu koy défé je pense nga xam voix des changer parce que ki ni bëgguma voix nit ñi xàmmee ko quoi c'est juste ça bu ko défé ngeen xamné ñi ay tiaga 100% pour duñ dara duñ gàtt nu ñuy toogee si télé bi di manière di ki buñu paré di tankal nit ñi yalla yalla yalla yalla buñu paré paree euh, euh, mooy loolu fu toy rek lañuy ñuy wër on vous parle vous nous dites que euh, un fois cinq bi un fois cinq bi fois cinq attends ah micro bi non parce que si TikTok bi am na nu ñuy changé voix fekk du si du si WhatsApp bi quoi dama xamul nan la nag mais am na nu ñuy changé voix. coucou tos naka. Ndourba ziar nekk yaa ci jàmm. kóol kóol yaa ngi euh, ci jàmm. léegi cliquer ci effet bi. mooy améliorer bi. Euh, waaw. waaw effet waaw. léegi gis nga effet ah. après musique da ngay effet euh, voice. Har har, tendance nouveau ambiance arrière plan. non du faux vacances. ambiance hein? ah. bu fekkee ci yow mën na am ñëwee outil léegi dugal outil. maa ngi outil. léegi outil leneen lan yaa amoo effet voice wala vocal amoo ko léegi génne dama amul yi laa fi gis ay gaay nekk ay yu kan xamul léegi génne génne dem effet effet ngay dem carrément effet waaw boo duggee ci ci maa ngi effet léegi da am benn tableau boo xam dafay am voice am musique non fii fii xaara non amul loolu

Mais, ah, euh, Exactement, oui, c'est ça. Merci. effet vocaux. OK. Amna amna sim am Exactement. Légui nak sim bi moy voix bo ki effet sonore bu ki bi bu aigu bi. Sim bi baxna. Ba ba robot. Play Play ba bien. xol. Sim. dégg. Wa ñoo dégg mais voix bi da fay changer. Mën nga benen. Yeen dégg fofu. Bémol la. waa bii bii <laughs> non bii moolu de bii da ngay dañuy xaw a am sa voix normal. <laughs> robo robo bi. waaw robo bi tane na. robo bi yéen may dégg bi baax na robo bi. waaw boobu baax na c'est bon. xaaral ma déglu xaaral xaaral ma déglu sama bopp si xaaral. xaaral ma déglu sama bopp parce que boobu moom bu ma am sax waaw jàmbur bi quoi. non mais sama nijaay naan di teel a. non non sax kon waaw ok ok. Uncle bu diapaz... Bu nek ti diapazon mi No, bunun non yorucu ore che dai fuori, c'è poco. Io in mene. Dai, non le dico. Io in mene, non le

changel bi nga jalaat beneen parce que bi baaxul dafay xaw a jigéen changel écho bi am na bii bii normal la bii sa normal la ah léegi waxal yéen may dégg naa es kool góor bii sa normal aussi tey yàlla mu ngi wér de allo baax na cool nice non yi sa voix normal la bu fekkee da ngay teg donc dañuy xam voix wu kooku ah léegi xaar champion bi xam nga champion xam nga mike bi bi waa bi baax na bi baax na bi c'est tey bu may dugg safara dinaa la yóbbaale de yow rek yow bi dama naan c'est bon bi baax na waa bi baax na ok tëjal sa micro ma xool ma teg après bu leeree ngeen wax ma ndax leer na xoolal gis nga Oustaz Modou Fall man maa ko mën a wax إذا مسكون فنحل يجيني كوي يقدر له قريب الحمد لله هو من ولا رف نيرين يدمي من لو مرف يعني هولن Muy leer bikula. Wa bikula bisa. Okay, okay, good, okay. Comme day day xamade mom. Mu ngi non. Okay. Fi xalé bu jigen bi day ne oustaz Modou Fall xalé jigen ñi xawma mom lum lay def mais man lum mu ma def lay rencontrer sama histoire. Deglul. xoolal gis nga Oustaz Modou Fall mën naa la ko mën a wax gis nga Oustaz Modou Fall xale jigéen yi koy yàq lu bëri yëpp nga lan la xaw ma loolu la def ñeneen ñi dem mais man lu ma def nee na yow Oustaz Modou Fall dafa am benn cousine am donc moom kan bon dëkk mooy loolu موجو كان يو سمكار أن رفعت جنبي بس جنبي سرينا دار سوغنو تا سوغنو تا غلا تدفورون دفعي كونفرنس سندك لينك من يوفا من فنوي من أتكون تقول لك مو يوي تلفون ميمان من لنو سابيا بوا لينك Uzazi Moldovano ndraiky edy mafy hoan'ny io. Zany koa izay malaky manamana ny reko hoe y a pas de souci aminah moa mody izy mankarà. Mahasarika ilaigna manao problème mandrakodrara respecteko ndimako anareo mahoandry Kany be manema ilay koa niany lalaliky parce que agnamboarako karaha.

cuu xaw dama dindi kii bi parce que gars yi ñu ngi naan Kali mu sedd ñëpp a ma koy bindal te damay topp samay followers mais bu dul loolu oustaz Modou Fall xaw ma utaat Modou Fall dinañ ko ne ñoo ko gën a xamati mais yeneen gis commentaire yi ñëpp ñu ma naan Kali s'il te plaît mu sedd kon faaw ma déggal leen ñoom. c'est juste rek pour wan leen ni ka xamadi jarul jaay kenn du ngeen toog di wan si télé yi ay oustaz ngeen bu ngeen demee gis benn xale bu jigéen si benn bërëb xale bu jigéen bi lu muy jot expliqué benn xaritam moo ko woone ko damay am ay gan mu dem foofu fekk fa Modou Fall ak beneen genre sëriñ nu mu toogee foofu xaritam bu jigéen bi ne ko ñaanalal kii amul jëkkër saay-saay daal di ko ne ah yow jox nga mu toll nii amoo jëkkër jox ma sa numéro booy bi jox ko moom it mu bippé ko mu enregistré booy bi ñibbi këram saay toog néegam ak silet daal di jékki-jékki rek woo ko booy bi coupé ko mu ne ko c'est c'est Modou Fall booy bi jël saay ak vidéo am naan dam la bëgg xool yu kenn xamut commencé audio yi dafa gudd ba jékki-jékki mu laaj booy fu mu dëkk booy bi wax saay taal otom dem foofu mais ñu bari dañ ma ñaan sinon ma tegal leen lu bari kon nag xale yi ngeen mën a jaay réew mais du ñun suñu génération ngeen bu ngeen di jaay réew du ñun ngeen di koy jaay du ngeen seetaan sunu ay live àdduna yëpp di wax li jot a am ñëpp di ko naqarlu ngay génn naan ay ñoo tey noonu nga mën a waxee parce que genre boobu nga noonu nga mën a waxee parce que genre boobu nga bu doon oustaz dëggantaan njaay nga doo waxee noonu mais ñi lay suivre nante yëpp xam nañ ne des nga nekk original cent pour cent nit nag motul sama classe ki ñu ngi si lu leen neex mais ñun ñoo dewuñu oustaz ay bandi lanu ay waga lanu ay kacapan lanu dañuy def lu neex mais munoo ñoo di ne oustaz nga boo génnee si tele yi di naan yàlla da lay duma ak da boo tourné fee di dem di def naka sudul noonu du ngeen dara sama classe gi nag dañuy def lu ñu neex ñun la bu ñu yàlla di rey bu rey ñu bu ñu laq mu laq ñu ñun moom na bëtuuñ waaw wax dëgg fa mais bu ñu demee ba ne oustaz jàng ba yey téere yi dina diinaloog nga wala islamoloog nga am na yu la warut waa moo tax seen kalaas gi ñun ëllëg yomal xiyaam yàlla du ñu soxla parce que day ne ah ñii kalaasu kalifan bi mooy vagabond bi nekkoon ci adduna bi rek jàngunu mais yéen jàng ba yey alxuraan gi ngeen xam lu si yàlla wax te jëfewu leen yéen la ñuy soxla dóor ay are te looloo ba xiyaam yàlla du ñu soxla parce que day ne ah ñii jàngunu ñii kalaasu kalifan bi mooy vagabond bi nekkoon ci adduna bi rek jàngunu mais yéen ñiy jàng ba yey alxuraan gi ngeen xam lu si yàlla wax te jëfewu leen yéen la soxla dóor ay are te looloo bari senegal diine bi dañ koy wutee muunin diine bi si lañuy ñuy amee ay jasneer diine bi si lañuy ñuy amee seen koppati yi dóor rek kay ñun nag du ku ñuy gaaruwaale ñun kenn du ñu gaaruwaale ku ñu gaaruwaale ñu toog suñu réseau du ñu ruus kenn samay flow sax vraiment jox leen cër rek moo tax mais sinon di nga gis di nga di nga dégg ay audio te di nga gis ay image fii ak dat beeg yépp duñu waxantu li ngeen nekk reculer leen si nekku leen ci dëkk bay booy yu ndaw ñooy ñëw ne nekku leen ci dëgg ngeen war a changer waat seen comportement ngeen ne da ngeen jaay xamati ay ñëw tey ana soi-disant kilifa ne maa tey maa tey mu ngi noonu euh, tey boo bëggee am loo dooli bisimilah balaa asalaamaaleykum nuyu wala sànq sax dama la doon wan effet bi et tout euh, maa ngi nuyu ñëpp

lu ne guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko war a def ci anam bu rafet anam boo xamante ne tey ku ko gis day xam ne fii yàlla moo fa nekkoon mais franchement image yu ñu gis moom kenn du ne yàlla amu fa de parce que nag yàlla moom moo xool fu ko neex la mu nekk fa mais lii moom euh, sori woon na màggal euh, màggal bésu yonent bi sori woon na jëf-jëf boo xamante ne noonu la ko alquran waxee noonu aussi la ko yàlla namee ci jaam yi encore une fois mot de nous on entend que nous demandons demander pardon parce que nous gis une internet ñu amna ben euh, euh, association bu nek Tivaouane bu porter plainte ki nga xamantene moy tonto Aziz on ne sait pas si c'est avéré ou pas mais euh, gis na comment sur YouTube tout à l'heure

ay kilifa ñi nga xamante seeni njaboot dañ leen di suivre pour man waruñu taxaw daal naan ay ñoo tey wala kiw parce que waxu ma tey moom du euh, du waxu kilifa du waxu kilifa encore une fois on parlait pas pour ngagne kenn mais on parlait juste pour que benen yoon mu bañ leen dalaat et que je pense que démb ñu fi nekkoon ñëpp ñu ci mel ne ay Xadija ñoom ñëpp ci lancé boobu noonu lañu wax voilà, donc man ñaalu naa trop réponse réponses parce que j'attendais qu'il dise juste même bu qu'il ne xaritu Aziz Ndiaye parce que dis-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es donc moom tey am nous nu muy rek ñëpp dañ naan kon Aziz Ndiaye ñu muy fréquenté ñoom pas lañ mel parce que il montre pas li nga xamante euh, exemple positif ndax nit ki même bu lay may ay milliards bu wax jëgg euh, wax dëgg jotee wax ko dëgg ndaxte fii euh, ku deew ak sa bàmmeel te lépp loo wax nit pour lu ko neex bés di nga wéet ak sa bàmmeel yow donc du nit boobu mooy ñëw pour euh, pour assumer wala du nit boobu mooy ñëw pour

Kali maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay siyaar bu wér a siyaar ñi ci kaw maa ngi siyaar ñi ci suuf Kali mosuma la ñaan mais tey moom dinaa la ñaan xam nga lu tax Kali kii ñoo jàkkaarloo am fas kër Italie dara jëy Cheikh Muntaxa mi ma yaakaar àddina ak àllaaxira bu njëkk géej la doon dem muy jaay ay saak ak affaire yooyu ba ci yàgg muy àddi fii ci dëkk bi di dem ci ay màggal ah. mu di fal li ma lay wax bu dee mi ngi lay seetaan dina xam lii ma lay wax nii man Sa Touba moom xam na bu baax man Moustapha laa tudd sant lay moom xam na mu baax ànd nañ ay fata sama téléphone bi ma yor Sénégal yor naa ci ay fata biir via après la dëkk nga parce que tey nit ku baax du tooñ ak fu mu mën di dem ci àddina ak lu muy àddisi rek nit ku baax du tooñ te nit bu la yàlla cëralee da nga xam yàlla da lay cëral cër bi la yàlla jox nga ngëpp ko sa loxo bañ dépassé sa bopp parce que ñàkk war ma mi ngi commencé ci tooñ di tooñ gis nga képp kuy tooñ ak daraja joo man di am képp kuy tooñ ak daraja joo mën di am rek doos gor quoi tey nag as gor day daw yaama tooñ internet bi kenn moomu ko parce que ki nga toog sa kër xas ko bu ko neexee toog këram tontu la kal yow xam nga li ma lay wax baax man xam naa li ci internet bi kon maanaam mu gudd ak mu gàtt nañu rafetal tey nit ku nekk li la arrangé rek ngay def li nga wax démb man yéeg naa fi démb wax nga ko xam nga kon avant ba set set xam nga li xew kon léegi tey ñoom bu ñu jëlee riposte kon wax jooju tuddoo kenn kon ñoom waruñu la woon wax ni la waw na wala tooy na mais dama lay ñaan rek lillaahi wa rasul mooy audio yooyu noonu ngir yàlla jëmi yonent bi ñu bokk rek ak yàlla mi ñu boole te dara dara du ñaaw rek baal mu sedd quoi. d'accord d'accord maa ngi tuub tey jégalu baax a baax. parce que nag a mais sama waay nga am naa wax la lool maa ngi tuub tey jégalu wér a wér a wér seytaane dafa bari doole quoi. maa ngi tuub maa ngi tuub nag. jaajëf dom day kontaan naa merci yaay rasoul ubbi sa micro bismillah merci Sa Touba jaajëf salaamaaleykum Kali alaykum salaam wa rahmatullah baayaa jam wa man Sa Touba euh, lamu wax rek la ron bëgg wax yaay deg parce que tamit gis nga ñun ñi li da top sa live à chaque fois bo live ñu ñu top la du yegg sa kaw live dafa am fuñ la tek yaay deg dégg ñoom dañoo nekkul ci deug xam nga gis nga boo nekkee ci dëkk ñëpp xam la da ngay oddu say kàddu xam nga yow nga ne ustaas nga nga def lu defewul ñu wax la nga ne maa tey loolu rek loolu rek lu ñaaw la yaa ngi dégg moo tax gis nga kali gis nga sénégalais yi billaah gis nga boo leen toppee dina dem ba mujj gi sax yow la ñuy joxoñ parce que ñoom nii la nii la leen yàlla bindee dañuy def lu defewul te boo waxee ñu dal sa kaw wala wax naka sudul noonu yaa ngi dégg ustaasu Sénégal yi daal moom moom macha allah am na ci ñoo xam ne nag tabaarkàlla moom defuñu dindiwuñu mais li saatu baa wax rek gis nga ay audio yooyu billaahi jaru ko yaa ngi jaru ko parce que ñun loo def ñu topp la du dëgg kon nag seet ci rek sa sa sa sa sa gaa yi la topp rek xam nga nga bàyyi mu sedd àdduna amul solo man loo loolu laa amoon ci lu may wax. d' am na solo merci may mën a taal ubbil sa micro. may mën a ubbil sa micro. oui allo. oui. salaam wa rahmatulah. Oh, wala ndef a ngi ci jàmm Kali jàmm. macha allah ça bien. alhamdulilah. en fait ñun dañuy dugg à chaque fois say live di la déglu parce que depuis ñun deewu Aziz Dabala beeg yooyu boobu lañ la xamee woon depuis boobu tey dañuy suivre sa live quoi. mais y' a certains détails quoi bëgguñu nga dugg ci affaire yooyu c'est pas la peine que comme li la saa baa wax affaire yooyu rek ci loolu la ñu appuyé dina la ko ñaan c'est pas la peine que ngay dugal ay ojo Modou Fall ça ne vaut pas la peine ensuite que gàmmu lañu woote li la metti moo ñu metti metti képp ñun ay taalibe Cheikh piir lañu. parce que li ñu ndax ñii li ñu def li ñu def ñun neexuñu ñun taalibe Cheikh yi parce que ñun. taalibe cheikh pire lañ lii musuñu koo xam musuñu koo def parce que am na certaines choses yoo xamante buñ ko defee dañ naan sabotage dañ koy def wala dañuy woote ne ñoom borom yax yi rëy lañ wala dara affaire yoo nit ñi di ci appuyé wu di leen ci bàyyi xel wala di leen ci bàyyi nopp di leen ci jàppale ñun loolu neexuñu li la la metti moo ñu metti ñun ñëpp parce que ñun ñëpp guddi Seydina Muhammad bi moo ñu intéressé moo ñu saxal keneen nag lu mu def mais bëgguñu nga dugg ci détail yo xam parce que liñ wax rek sénégalais dañ lay duggal ba nga dugg après ñu déllu seen ginnaw bàyyi tok fi ñu ñun bëggalu ñu lako ñu lay suivre bu baax kali Dila wax ni fi nga japp ñun on est derrière toi ñu sa ginnaw bu baax baax fo nek fof lañ nek dañuy suivre sa live parce que amna lu bari lu ñu jangat ci aduna bi amna lo xamantene lu bari aussi tamit xamuñu ko won xam nañ ko ndax yaw kon ñu la koy santé bu baax dila wax tamit aussi amna yo xamantene jaru ko quoi ñoo ngi jéggalu aussi bu baax di la ziar bu baax am na solo am na solo jaaraama merci Maimouna kontaan nañu jaajëf avocat ubbil sa micro avocat bii dugg ubbil sa micro kii suuf avocat ubbil sa micro ok donc mu ngi noonu gars yi dinaa leen jël encore une fois ñii ma ñaan sax a tax ma bàyyi waaye xam naa ne mooy li ma wax rek Modou Fall moom amul amatul suñu respect fiñ ko tegan moom ñun dindi nañ ko fa buñ la woowee di la oustaz ba ñu bëri di la nawloo yenn si sénégalais sax liñ la nawloon as tuut commencé woon nañ ko dindi parce que sa comportement si télé bi c'est comportement ci télé bi mais ñun ñu ngi toogoon di la bàyyi xel mais boo demee ba ne encore une fois les vidéos sont là ñëpp gis ko ñëpp gis vidéo yi ñu ne zuuru gàmmu ñu gis ay nit toog ak ay góor ak ay jigéen jaxasoo du gàmmu danga si waroon ànd nga ne wallaay wax ngeen dëgg jumte la du gàmmu looluy dëgg bu dee lislaama tax a bu dee lislaama ñor ñun amuñu lu ñu lekk mais dëgg moom dañ koy wax moom bu dee ay nitu dëgg ngeen bu ñu toogee ba ñu ne guddi gàmm sallallahu alayhi wa sallam guddi nabi góor ñi dañ war a toog fii jigéen ñi toog fële kuy ñëw si bâche bi danga waru war a muur sa bopp même bu dee da léttu ba nga jug foofu boo demee feneen dafa lu la neex mais ñu dara jaal bës bi ñu màggal guddi bi loolu la ñu sant mais doo si teg sa bët si gàmmu nga jékki-jékki naan dem leen di présenter sama aawa sama sa sama jabar moom rekk laa bëgg loolu lu mu si gàmmu gàmmu loo siy présenter say jabar tu as beneen jour pour présenter sa jabar taalal sa TikTok le lendemain taalal sa TikTok mais xoolal lii lii lii si ay soi-disant oustaz lii lii lii lii ajazat kullal wara madame Fall jugal taxaw waa tante bi xool la sayyidil wali na ajazat kullal wara nabi man ki ma yor nëbbu ma ko dama koy wane. dégg nga Seydil Axirita ajasat kullal wara. ku ma la wax ni la nopp naa ko kudul kii dama lay nax. dégg non subhanallah lii mooy gam. non. wi ma dam ne. Ah. ok non xoolal lii rek madame jugal ma yor du guddi nabi. lii lii lii lii. dégg nga ajasat kullal wara. madame jugal taxaw waa bi xool Seydi la wali madame Fall jugal waa tante bi xool la lu ñuy xool si sa jabar te ngeen ne góor warul xool jigéen man la léegi léegi léegi léegi mais attends man je comprends pas naa fekk bi <laughs> yéenay toog ne góor warul xool jigéen bu mu taqul yéen ñu koy wax waaw waaw waaw looy yéen ñu koy wax wala waxul ñu ko yéen ñii di toog ci télé di waaraate sa bët gii warul xol jigeel gumu takul wala bo xol ben yon waroo yow nga andi sa jabar bu la law nga ne na ko nit ñi xol mais lolu ça signifie quoi lan lañuy ñuy fofu pour ñu xol sa jabar fondé na wéni na taati rëy na ñuy andil ñun problème parce que boo xol di dañé ah jabar oustad bi wax nga dañ ñuy bakkar lo fu bakkar lekul nga andil ñuko parce que ku xol sa jabar bu wéni baxé dina ne ah ndeke oustad mu ngi namp lu neex bu taati baaxee di nga ne ah oustaz nekk jabar ji namul dara taati rëy la yor tam ñuy bàkkaarloo jabar booy gàmmu am nga droit ànd ak moom mu gàmm na toog mais jugal ma wone la xool leen namu ma dara moom rek laa nopp si jour gàmmu guddi yonent bi fu ñu waroon toog ne yàlla nee na yonent bi nee na déglu leen attentivement avec ça il parle de ce c'est pas quoi déglu leen aatuna ajazat kullal wara madame Fall jugal taxaw waa tant bi xool la a walina ajazat kullal wara nabi man ki ma yor nëbbu ma ko dama koy wane sayyidil axirina ajazat kullal wara ku ma la wax ni la nopp naa ko ku dul kii dama lay nax sayyidil <laughs> ma ne mbaa yëg nga ni man Modou Fall sama xol bi kii laa ko jox. dégg soppi nañu addis yi addis yi soppi. kii di naan Seydi eh, fooroon toog naan yonent bi ba mu doxee dox ba sonn yonent bi ba muy gëseeg diw yonent bi ba muy àndeeg nit yow toog ne madame Fall dugal ma wone la waa ji téye oui, oui, est-ce que c'était le but du gang mais attendez nous, après une toog à né fait yow fenkat nga ñun fenuñu une ñoo nekkul ci bu nekkul ci di reconnaître nekkul ci ay nit mais ñu def vidéo mu ça veut dire quoi est-ce que nous, war nañu place plateau c'est des madame Fall jugal taxaw waa tant bi xool la. waa tant bi la ay. man ki ma yor ko dama koy wane. ku ma la wax ni la nopp naa ko ku dul ma ne mbaa yëg nga ni man Modou Fall sama xol bi kii laa ko jox. ajasat kullal wara. yow tam awadu ay caaxaan awadu ay fo. sayyidil mursalin ajasat kullal wara nabi. mbokk yi. deuxième partie bi xam ngeen nu muy. lii de mooy gàmmu gi. awadu caaxaan awadu ay fo. si guddi nabi ana yonent bi. kan moo leen di wax yonent bi. kii di leen naan sama jabar jógal ñu wan leen colonel jaral micro bi yéen a ko seen bët de. jaajëf jaajëf Kalima.